asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu conférence des leaders di jox nuyoo bi sunu président Khalifa Ababacar sàll di leen wax ne leen yéen yéenay décider est-ce que Askan Wi day bokk wala du bokk ma bëgg bu fekkente ne day bokk ngeen ànd ak man woy Yewwi day bokk par la force day bokk Yewwi day bokk par force day bokk Yewwi day bokk par force day bokk Yewwi voilà loolu foog naa kenn du ko dindi volonté populaire la ni suñu rassemblement bi Yewwi day bokk par force day bokk voilà léegi nag léegi nag ma wax leen lan moo nekk en jeu lii ma yar nii briquet la briquet pour lan la pour taal conseil constitutionnel dafa taxaw yor briquet yor allumette bëgg taal réew mi loolu est-ce que dañ koy nangu leader yi toog nii jamono yi ñoom ñooy extincteur u Sénégal ndax Macky Sall extincteur sax amu ko moo tax onze bébé dee ci hôpital ñii toog nag danoo yor seen extincteur di fay daal bi kan mooy lakk daal bi kan mooy lakk daay bi kan mooy lakk daay bi ñii dong ñëw ko mën a fay may tëjee rek wax lan moo tax coalition Yewwi Wàllu lan moo tax ñu war a voter pour majorité bi génn ci loxo Macky Sall c'est pour empêcher ay sàcc ay sàcckatu milliards di nekk assemblée far ba Ngom en personne lan moo tax ñu war a nangu assemblée bi ci Macky Sall pour tere ay trafiquants de faux billets Bougazeli lan moo tax Macky Sall mérité wul assemblée nationale pour dindi fa njuuj njaaj jim fa nekkee ñi nga xam ni ñooy luubal passeport diplomatique Macky Sall a perdu la confiance du peuple loolu moo tax mu tiit et le peuple le juillet incha allah votera wàllu Yewwi foofu laa leen di wax taxaw leen motiver leen soyez derrière les leaders par la force dañuy bokk merci beaucoup. merci beaucoup Maimouna Bousso ñu ñëpp xam nañ ni li ñuy def nii. comme ni ma ko waxee sama njëlbéenu wax ça concerne tout le Sénégal tey kenn xam. salaamaaleykum mbokki Sénégal bi Macky sàll bëggee éliminer Karim Wade ab magistrat moo ko ci dimbale bi Karim Wade bëggee dindi Khalifa Sall ab magistrat moo ko ci dimbale. bu mu dàqee Ousmane Sonko ab magistrat moo ko ci dimbale bu mu bëggee dindi yenn leaders yi indi parrainage ab magistrat moo ko ci dimbale tey jii bu mu bëggalee yeewu askan yu bokk ab magistrat moo ko dimbale je pense que doy na monsieur le président de la conférence des leaders le peuple sénégalais a parlé si la justice est rendue au nom du peuple sénégalais le conseil constitutionnel doit démissionner aujourd'hui le conseil doit démissionner aujourd'hui parce que ce que nous attendons du conseil constitutionnel sénégalais c'est que nous aider à la paix sociale à la paix politique à chaque fois qu'il y a eu de la tension au Sénégal c'est le conseil constitutionnel qui est derrière il faut réformer ce conseil constitutionnel il faut changer de ministre de l'intérieur parce que ce que nous avions dit depuis le départ maintenant sunu ministre de l'intérieur nañu ko confier nit boo xamante ne bokkul benn parti politique aujourd'hui nous avons un ministre de l'intérieur qui travaille pour Benno Bokk Yakaar c'est ça réellement le problème je pense que Barthélemy a raison il faut qu'on pose le problème de la neutralité de la personne qui gère le ministre de l'Intérieur parce qu'on ne peut pas continuer à subir les choses la deuxième chose c'est que démb tous les présidents d'institutions ont fait une conférence de presse contre la manifestation du peuple le président de l'Assemblée nationale monsieur Idrissa Seck les premiers ministres tout le monde est sorti pour une conférence de presse contre Yewwi Askan Wi mieux que ça Habib Sy le président Habib l'a dit tout à l'heure même notre diplomatie travaille aujourd'hui contre Yewwi Askan Wi parce que ce qui est dit ce n'est pas vrai on n'a jamais vu Macky Sall mu dem ci benn dëkk boo xamante ne France day xeex ak moom mosul am il n'y est pas allé simplement pour wuti du blé il y est allé pour que les Russes ne viennent pas soutenir Yewwi Askan Wi parce que il a vu les Russes au Mali il l'a vu impliqué dans des élections dans d'autres pays il est allé leur parler pour que ces Russes ne viennent pas s'impliquer je ne dis pas Je ne dis pas que nous voulons que les Russes viennent nous soutenir, mais je dis simplement que nous ne sommes pas d'accord que la diplomatie sénégalaise soit utilisée pour combattre les leaders de Yewwi Askan Wi. C'est cela qui n'est pas normal. Maintenant, Macky Sall, le ministère de l'Intérieur, ils ont un pouvoir. Le Conseil constitutionnel a son pouvoir. Mais dëkk benn pouvoir moo ci am. C'est le pouvoir du peuple. Il n'y a que le peuple qui a le pouvoir. Personne d'autre n'a du pouvoir dans une démocratie. Personne. Et adduna bi yëpp amul benn police amul benn armée amul benn gendarmerie qui peut faire face à un peuple déterminé. Il n'y en a pas. Si le peuple sénégalais veut quelque chose, il l'obtiendra. y a des choses qui dépendent de nous. y a des choses qui dépendent de vous. Ce qui dépend de nous, c'est que nous liguons à mettre en place quelque chose qui permet de gagner. On l'a fait. Nous avons une coalition, Wallo Askanui, Yewi. tous les coups, cette coalition va gagner. Maintenant, il y a quelque chose qui dépend de vous. C'est ndigal bi ndigal bi tey dina jib on nous empêche on nous empêche on veut nous empêcher de participer aux législatives nous allons participer aux élections législatives. Bail fausse. Maintenant, nous, ils voulaient que ce soit des élections législatives. Sous nos constitutions, pour gagner l'Assemblée nationale, il y a formé gouvernement. Pour gagner l'Assemblée nationale, il y a formé gouvernement. Donnez-nous la majorité à l'Assemblée nationale et on forme un gouvernement Yewwi Askan Wi on passe d'élection législative à une élection gouvernementale ce que nous voulons c'est que vous élisez Yewwi Askan Wi comme étant le gouvernement du Sénégal je vous remercie